Mbaye Gouye Gui Alioune Seye ah. euh, su ma yore woon Alioune Seye Junior dama naan ko bu ko Mbaye Gouye suuf parce que ñëpp gis nañ ne Mbaye Gouye Gui soo soufflé day dal sa kaw xàmmeewul jànj ak joor Alioune Seye de nag dafa doon koo xam ne day damyee day def benn benn ñaar te bu ñu fàtte ne dafa dugg Bawol daan fa seen mag muy mbay Diouf kon bu fa dellu see du doon combat bu yomb mais na moytu ki nga xam ne moom mooy Mbaye Gouye Gui bëre entre xam si ceinture bi ak li nga xam ne mooy si paccuise bu fa mbay guy gi njëkkee làmb ji du yàgg man maa la ko wax léegi léegi. gis nañu ni aussi euh, moom Alioune Seye dafa me ni ko énervé ci digg géew gi euh, niruwul ku serein. waaw xam nga am na ñoo xam ne bu ñu ànd ak yow dañ lay déstabiliser euh, dama gis ne su fekkee ne mbër mi sax serein wul ñi nga xam ne moom la ñu ñoom la àndal ñoo ñoo ko war a rappeler à l'ordre mais suñ ko seetaanee si offre bii nii su ko bëree du am lu ko neex si combat bi parce que combat bi combat tactique la parce que Mbaye Gouye Gui néewul doole te doonul njool comme mbëri te ñoom ñaar ñoo tolloo. avertissement Mbaye Gouye Gui. arbitre nee na ndax pare ngeen ñëpp nee nañu pa ñëpp pare nañu. Mbaye Gouye gi day ñëw toog na ci tànk yi mu ngi ñëw. oh day ñëw. day ñëw ñu ngi jëm